jëf bu joxewul résultat jaratu ko nit ñi nag xàmme wu ñu yitte ak yëngu yëngu mooy nit ki nga xam ni foo wàññee ko gis ko mais li muy dox yépp du la mën a woon résultat bi yitte boroom mën nga ko bañ gis sax te mu wóor la ni am na lu taxaw te la loolu mooy yitte yitte ak yëngu bokkul du benn moo tax mag ñi sopp yitte ndax dafa aju ci ruux waaw wante yëngu moom dafa aju ci tendance yi rek waaw bu ko defee kenn dootul dégg sama turandoo ku ku soppoon yitte hmm. am na benn bayt bu mu daan faral di wax parce que bayt bu ko neexoon la mooy lahu himamun la muntaha li kibaariha wa himmatuhu suura ajallu min addahri sama turandoon ne balaa sopp kilifa ba te kilifa ga amee yitte yoo xam ni yëcca rëy kenn mënu ko natt waaye ba ca gën tuuti not na jaman loolu mooy yitte waaye ka jooyoon hamamtu kooku du yitte kooku tendance la hamamtu walam afaal wakittu walaytani taraktu ala usmana tabki xalailu kooku du yitte parce que sidna Ousmane li mu defal yonent bi yépp ñuy comploter pour rey ko ni la yow yaa koy rey nga bég ci mbégu bu ma ko reyee sama famille di ko tiitaroo ba paw mais kooku du yitte alkande moo tax ba mu sooyee mu jooy yooyu yu rëy ni waay sama famille ñàkk nañ bu ma reyoon tey Ousmane ñu di leen ko tagge ba ëllëg